jaajëfa tee kii nag Modou la woon quoi ak profam xam nga Modou moom gars yi dañ ko sonal quoi chaque jour Modou moom ni laaj la ko ñëpp xamee bref nag mu wax benn jour qui peut me faire une phrase avec le mot sucre avec le mot sucre chaque matin avant de venir à l'école je bois mon thé bref nag matin je bois du thé est le sucre ana sucre bi léegi yooyu mun a ko amee musal suukar buñ ci biir tee bi